ku ci sàggal ku ci sàggal na sàggal na sàggal bisu laana bi ku ci sàggal ku ci sàggal na sàggal na sàggal bisu laana bi ku ci sàggal ku ci sàggal na sàggal na sàggal bisu laana be eh, bisu laana bi ku sàggal bisu laana be eh, bisu laana bi ku sàggal bisu laana eh, be ku ci bëgg Seydina Muhammad yëkkatil sa ñaari loxo sàggal bismillah rabbi ku ci sàggal ku ci sàggal na sàggal na sàggal bismillah rabbi ku ci sàggal ku ci sàggal na sàggal na sàggal bismillah rabbi ku ci sàggal ku ci sàggal na sàggal na sàggal bismillah rabbi bismillah rabbi sàggal bismillah rabbi bismillah rabbi sàggal bismillah rabbi Never gonna ku ci bëgg Seydina Muhammad yëkkati ñu sa ñaari loxo wala lan laay bégal ngir yonent bi mu sàggal ana taalibi Cheikh yi ana taalibi Cheikh yi ana taalibi Cheikh yi taalibi Cheikh laay bégal ngir yonent bi mu sàggal ku ci gën a bëgg sëñ Babacar Si yëkkati ñu sa ñaari loxo wala lan laay bégal ngir yonent bi mu sàggal ana taalibi Cheikh yi أنا طالب بشيخي أنا طالب بشيخي طالب الشيخ لا يبقى يلك بي تجار يولون تجار سحيون ولا لا نحن من أسحيون تجار يولون تجار سحيون كفك نبقي ننتبي يكتن سنياري لكم أنا سبقي سنبابك يلك بي ku fi gën a bëgg yonent a yëkkatil sa ñaari loxo ana soppe yi Muhammadu la min yëkkatil Muhammadu yaa Rasulullah ee Abdullah yaa yi baayam su ngeen déggee turam na ngeen julli ci moom yonent sallallahu alayhi wa sallam bi amul doole tijaan bi sax ñëw na acca tijaan yi ñëw na ay tijaan yi ñëw na tijaan yi ñëw na tijaan sax ñëw na ku fi gën a Babacar Sy yëkkatil sa ñaari loxo ana soppeñ sëñ Babacar yónnee fii sàggal xale yi judd ci ginnaaw mbay gisunu mbay mbay la nu gëm xale yi tey noo lay tantal moom yónnee fii sàggal yàlla moo ko ko defal sàggal ku judd rek bëgg ko eh sëñ Babacar laay way yónnee fii sàggal su jaani ñëw di jaaju sax ñun alaaji Malick ki gërëm leen ba nekk alaaji Malick ki gërëm leen laa kon yëpp leen bii di sàkkal wala Lac de ba nekk alaaji Malick ki gërëm leen laa kon yëpp leen bii di sàkkal wala suukar si njuum ji tam alaaji Maalik suukar ni la jaagi ñëw jaagi sax ñëw nangu jaagi ñëw nangu jaagi sax ñëw nangu soo bëggee ma bëgg la dangay bëgg ki ma bëgg nu bëgg kenn ku nu bëgg kooku mooy Sëriñ Babacar tàggoo tijaan ñëw nañu tijaan sax ñëw nañu ku fi gën a sa ñaari loxo ana waa ñingini ana waa ñingini ana waa ñingini e waa ñingin laay déggal ngir yemin fi sagal waa ñingin laay déggal ngir yemin fi sagal ku fi sant ñingu yëkkatil sa ñaari loxo ana soppay maam Ablaye ngir yemin fi sagal tijaani yow noonu tijaani soxla noonu sama bëgg bëggee ma bëgg laa dangay bëgg ci ma bëgg nu bëgg kenn ku nu bëgg kooku mooy si Babacar yónni di sagal Tijaani ñëw nañu Tijaani sax ñëw nañu aca Xaadir yi ñëw nañu ay layo di ñëw nañu Tijaani ñëw nañu soo bëggee ma bëgg laa dangay bëgg sunu bopp kenn ku nu bëgg kooku mooy si Babacar ngir yónneen fii sakkal Tijaan ñëw nañu Tijaan sax ñëw nañu ku fi gën a bëgg maam Cheikh Ñing yëkkatil sa ñaari loxo bëgg sa loxo yi ca kaw ana soppey maam Cheikh ñëng ku ko bëgg sa loxo yi ca kaw maam Cheikh laay déggal day yam leen fii sàggal ci jaani ñëw noonu ci jaani sax ñëw noonu a ca xaadir yi ñëw noonu ay laayeen ji ñëw noonu ci jaani ñëw noonu ci jaani sax ñëw noonu ci jaani sax ñëw noonu ci jaani ñëw noonu fi gën a bëgg sëñ Bass Gningue yëkkatil sa ñaari loxo ku fi gën a bëgg sëñ Bass Gningue ku fi gën a bëgg sëñ Bass Gningue ku fi gën a bëgg sëñ Bass Gningue ci sakkal ku fi gën a sa ñaari loxo waa Gningue ci sakkal ci jaami ci jaami sax ñëw na jaaru sax ñëw loolu soo bëggee ma bëgg loo dangay bëgg ki ma bëgg nu bëgg kenn ku nu bëgg kooku mooy Sëriñ Babacar mooy yam leen fii sagal al amin al amin al amina sëñ Abdou yaay amina ya Abdou al mawla ya Abdou yaay amina sëñ Abdou yaay amina

نقول خلال الأمين الله يوم خير وي وي كسب سيد الحاج مالي قد مخاف خير يا بين المسيح يا يا من قد يا يا سيد النور سيد أروى nabi jaaral loxo ñu màggal ku nabi jaaral loxo ñu màggal Mamadu ku nabi jaaral jóg leen ñu màggal Mamadu ku nabi jaaral jóg leen ñu màggal Mamadu ku nabi jaaral Muhammadu loxo ñu magal Muhammadu ku nabi jaaral Muhammadu loxo ñu magal Muhammadu ku nabi jaaral Muhammadu jaaral na maay Muhammadu jaaral na leen Muhammadu ku nabi jaaral Muhammadu loxo ñu magal Muhammadu jaaral na maay Muhammadu jaral na lil mumdun Muhammadu jaral Muhammadu ya Rasulallah Muhammadu ya Habiballah def na ni ya Rasulallah Muhammadu ya jara magal Muhammadu ya Rasulallah ya jara magal ana ñu bëgg yonent bi ya Rasulallah turam dafa ne sallallahu alayhi wa sallam ya rasulallah yaa jaram magal def li nu ya rasulallah kiram dafa ne sallallahu alayhi wa sallam ya rasulallah yaa jaram magal ara ñu bëgg yonent bi ya rasulallah juram dafa ne sallallahu alayhi wa sallam ya rasulallah yaa jaara magal def li ci sang bi ci mu dem yaa rasulallah ñun de moo nuy sañseel sallallahu alayhi wa sallam yaa rasulallah yaa jaara magal ku farag mam texe nga yaa rasulallah ñun de yaa nuy sañseel sallallahu alayhi wa sallam yaa rasulallah yaa jaara magal ana ñu bëgg yonent bi yaa rasulallah turam dafa ne sallallahu alayhi wa sallam ya rasulallah yaa jaaroo magal ana walaala ya rasulallah yow de moo lay sañseen sallallahu alayhi wa sallam ya rasulallah yaa jaaroo magal ya rasulallah yow de yaa nu ñuy sañseen sallallahu alayhi wa sallam ya rasulallah ana ñu bëgg yeneen ci bi yaa rasulallah ku di soppeem loxo tey ma woyalan yonen yaa rasulallah yaa jara magal Muhammadu yaa rasulallah ku ko bëgg loxo sallallahu alayhi wa sallam yaa rasulallah yaa rasulallah lu fi am rek yow la sallallahu alayhi wa sallam yaa rasulallah jóg leen magal yonent bi yaa rasulallah lu fi xew rek yow la sallallahu alayhi wa sallam yaa rasulallah yaa rasulallah yaay borom mim gi yaay borom lam gi yaa rasulallah nunu mel rek yow la sallallahu alayhi wa sallam yaa rasulallah yaa rasulallah man de yow laa bëgg sallallahu alayhi wa sallam yaa rasulallah gaajara magal xabru baa nga madin sallallahu alayhi wa sallam yaa rasulallah gaajara magal yaa rasulallah sang baa nga faan sang baa nga madin yaa rasulallah يا جرمك الخلد بقت إيمان عبد الله وبي عبد الله وبي عبد الله أيوة وبي عبد الله دومي عبد الله doomi Abdalaay ji ay waay doomi Abdalaay ji doomi Abdalaay ji aminata yaay jaa aminata yaay ji ay waay aminata yaay ji aminata yaay jaa aminata yaay jaa aminata yaay jaa yokkal ñaari أمين تيايجا أمين تيايجا في الله دمي عبد الله دمي أمينة دمي عبد الله جي أي واي دمي عبد الله جي دمي عبد الله جي doomi Abdoulaye Diofila. kenn ku nekk de am nga yow ku lay yëngal ku lay. kulu ismin bi maa la doon ñu fari bul ba ko ay waay. كل طالب الشيخ ما مخلفا يقول بلا صوت قوتك لكن قدم تيمين من لا يا ويدا نل اي واي واي تيجان امام خليفه مولى دال بلا صوت قوتك بلا انا انا سوف يلا تلقيتك كنت بدك ينت sa jaari loxo ku fi gën a bëgg yonent bi loxo jag di ko til sa jaari loxo ana soppa yonent ku bëgg yonent loxo yi ca kaw wala la la di wayan yoni yo da ayako wala la la di wayan yoni yo da ayako wala la la di wayan yoni yo da ayako ku fi bëgg Seydina Muhammad di ko til sa jaari loxo ku fi bëgg بكت الزجار له وعدت الذي وين يليون آية وعدت الذي وين يليون آية وفجر جتك بنبينا له فوق سجاك جانا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا في بك سيدنا محمد يكتل سجارنا bëgg Seydina Muhammad lu bëgg sa ñaari loxo billaay ana soppey yonneen ku bëgg yonneen la koy jagal acca na bee jarama gal Mustafa joro magal aca mboolem tiiraange yey xéwal yi ñu yaa ko waral bilaay sunu wasila too ay waay giru giri ñaanga demal giru gu la may wax la ko xoole la ko ana soppe Serigne Babacar gum ko fi jaaral loo koy jàkkaw ana soppe Serigne Babacar gum ko fi jaaral loo koy jàkkaw waa laa laa la ni bégal yéen yéen waa laa taala la nuy bégal yéen yéen a aaya tey billaay yéen la nuy bégal yéen yéen a aaya tey billaay bu fi amee aajo yëkkatil sa loxo billaay bu fi amee aajo da nga bëgg mu gaaw faju billaay jëlal oto dem ci waawan ci waawan ci waawan ci waawan ci waawan siyaare mam Maodo ziyaar sëñ a mooy xalifa Ababacar aca wax leen mbay ci mbay yónne leen mbay ci mbay billaay ana soppey sëñ dëgg ku bëgg yónneen la koy jàkkaw lambi diine saajina doomi soxna yagembo Cheikh Tidiane lan waale bàgg leen sëtu Maodo billaay roko amoon na borom sëriñ Cheikh ay borom doxum du bàyyiwul dugg ruq yow fekk la ci biir ruqiya di la rakk sa a rokk ndax Serigne Cheikh ay borom rokk aca yëkkati leen yëkkati leen loxo ca kaw aca yëkkati leen ay ca yëkkati leen loxo ca kaw aca yëkkati leen ay ca yëkkati leen loxo ca kaw انه كان يهوى يهوى وقادم لوازم عود في جانب شبل وخيام ولهوى في دنيا واخرى وسلم يا مولانا في دنيا واخرى يا مولانا في دنيا واخرى ku ci sàggal ku ci sàggal na sàggal na sàggal bismillah rabbi ku ci sàggal ku ci sàggal na sàggal na sàggal bismillah rabbi ku ci sàggal ku ci sàggal na sàggal na sàggal bismillah rabbi bismillah rabbi sàggal bismillah rabbi bismillah rabbi sàggal bismillah rabbi ku ci bëgg Seydina Muhammad yëkkati sa ñaari loxo Bisulalambé Bisulalambé ku ci bëgg Seydina Muhammad yëkkati